jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen bu baax a baax a baax am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne euh, jàngat làmb tàmbali na bàyyi ji li Père ñuy nuyu ñëpp waaye mën a nekk ci réew mi ak bitim réew di leen jaajëfalaat bu baax a baax di leen ñaanal yàlla suñ borom defal leen jàmm ñu wuti ji ñoo xam niñ fay wuti yàlla na suñu borom defal xéwal gu baree baree bare ba ñu dellu siwaat seen réew ñi nga xamante ne feebar tëdd ci hôpitaux yi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 Eh, di kontaan ci ñoom di eh, ñaan yàlla sama kaddu yàlla na fekk leen ci jàmm. di ñaanal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di ñaan ci monde entier bi yàlla na fi yàlla def jàmm. Hmm. la sa jàngoro ji lëmbe àddina bi yëpp. Hmm. dégg mu téye ba activité ñëpp ñu bari seen activité wàññeeku. Hmm. yàlla na ko yàlla seppi ni dëkk. amiin wal lépp ñuy toog mujj ci nettali. Eh, di kontaan tamit ci ñu toogati tey di waxtaan lu jëm ci làmb. ak lu jëm ci actualité àddina bi. may nuyuwaal ñëpp nag di nuyu surtout nag ñi ma bokkal liggéey bi. Bachir Adama Kaku. Hmm. Ousin. Hmm. ak jiiri sama doom sama xarit. <laughs> léeg-léeg mu sànni ma xeer nag. <laughs> waaye nag comme sama sànni xeer nag <laughs> dama dama koy baale xam ne sama doom la quoi. waaw sama ah. papa nga ma la ah. euh, li ma bëgg ñu waxtaanee ko tey ponk bu njëkk bi. mooy hmm. moment bi nga xamante ni Covid bi ñëw na. ñu arrêté activité yu bare. Euh, bientôt léegi ñu dugg ci un an yoo xamante ni benn activité doxul. surtout. sportif yi rawatina mbëru làmb yi. Euh, am na ci ñoo xam ne gis naa leen certes dañu yokk état. état boobu ñu yokk laa xamul ba xam lu ñu liggéey la. gis naa ci yenn mbër yoo xam ne duñu jeex. gis naa ci mbër yoo xamante ni sax entraînement bi tax ñu naa entraînement defatuñ ko. moment bi mbër ci yan jéego la war a entraîner ba mel ni mu war a mel. waaw xam nga avènement yu mel nii dina am mooy maanaam mbër dina nekk ci forme boo xam ne bi entraîné sax amul combat. Hmm. forme bi ñëw na. mu gëj am combat loolu mën naa nekk. Hmm. waaye nag natt bu mel nii bu ñëwee nga xam ne presque yaa ngi entraîné guddee yaa ngi entraîné bëccëg suba ak ngoon dégg nga te compétiro loolu tamit euh, day am lu muy wàññi ci mbër bi. Hmm, hmm, parce que claquage day ñëw. waaye nag boo loolu ñëwee dafa am nooy liggéeyee. ni ngay liggéeyee mooy far dootoo liggéey comme na nga daan liggéey mel ni ku jël avance war a war a bëri dimanche. de maintien ngay def. maanaam di nga daan liggéey par suba gi bu dee ñaar. nga xaaj ko ñett di def benn bi. bu dee suba gi li nga daan xëy def ñett nga xaaj ko di def benn bi. Mhm. di maintien di maintien di maintien maanaam sax di nga tenir sa forme ak di teel a tëdd nag di nelaw nag. Mhm. ak di récupérer di nelaw di maintien sa forme. Mhm. loolu moom bis bu maanaam miskili day noppalu. bu miskili noppali koo nag boo demee ba l'affaire bi ubbiwaat nag bañ ne ah ubbi na mois bu njëkk bi soo yëngu rek sa yaram di yeeweeku. sa yaram day daal di yeeweeku nga daal di commencé nag jàppaat forme nag condition bi commencé ñëw. Mhm. comment lépp daal di commencé delluwaat fekk loolu nag da koy téye waaye bu fekkee da ngay entraîné da daan entraîné te compétiteur loo claquage lay indil. Mhm. muy benn mhm. ñaareel bi am na ci loo xam ne tamit euh, day gaañ mbër mooy ñàkk nelaw. ñàkk nelaw waaw ñàkk nelaw baaxul ci mbër. baaxul ci nit sax boo du nit rek sax waaye ñàkk nelaw bokkul ci doomu aadama. baaxul ci doomu aadama est-ce que xam nga ne nit bu bu toogee une semaine nelaw rek commencé tàggu sagoom xamoon nga loolu. déedéet loolu de mosuma koo xam. dafa ngi gën a gaaw ci nga ñàkk nelaw. am na booy bu nekk sama koñ Alioune Naar. day jàng mais Alioune du tëdd ci la paire. waaw kooku léegi boo génnee guddi bu ko dul def nag bu dul nelaw nag. xëy na xëy na am na tuuti lu muy nelaw loo loolu dul yëqee na hmm. mais bu toogee sa ñàkk nelaw rek mu tàggu sa gom tête day reposé xel day reposé day dafa war hmm. neppalu xel mi. Hmm. genre ordinateur la moo xam ne bii dafa war di noppalu. dégg nga nelaw xel la moo tax yàlla bind ñu boole ñoo nelaw. moo tax gis nga booy nelaw doo ko yëg mhm. boo tëddee da ngay jékki-jékki booy nelaw mhm. doo mën ngaa waaj tëdd tëdd summi ku tëdd yëpp mais booy nelaw doo ko yëg doo yëg ne yaa ngi nelaw doo yëg ne yaa ngi nelaw nga jékki-jékki bu doy rek nga yeewu mhm. moo tax nelaw daf dañ yàlla dañ ko boole waale ci mooñaale ñu ko kon lu bar ci doomu aadama bi la moo tax surtout athlète nag dafa war di récupérer di lekk bu baax di entraîner di teel a tëdd di teel a yeewu soo teel a yeewu def sa footing bu yam ngoon nga def sa de contact ñëw toog jàpp séance de maintien loolu moom soo ko defee moom ba keroog fekk làmb ji ci kaw bi moom dina fekk nekk super hmm. waaw ah, ba toll ni yaram ne nii nga defee ne am nga doole fekk dara nekku fa fekk condition volume fa nekk mais condition physique moom moo xool lay doon. Hmm. nekkul ci muscle. Hmm. condition nekkul ci bras yi nekkul ci yi nekkul ci tànk yi nekkul ci cuisse yi. condition ci xol la. xol lay waaw xol xol bi mooy tenir. Hmm. dëgër wala oyof. gaaw a sonn wala dara. Hmm. gisoo boo xam ku am lu conduire gis nga ñooñu nga xam dañoo am yaram te defuñu conduire defuñu physique. Hmm. dawloo ci kenn benn série de cent nga xool. koo ci dawal série de cent mètres bu ñëwee day ni muy nooyee gis nga ko apat. day apat ba xool ñu am na ci wax ne sax duñu mën a taxaw dañuy tëdd. moo tax garder forme yombul. waaye nag da nga koy jaayante nag. xam ne man maa ngi yëngu ci làmb te yàlla may na ma ci tur. Hmm. te wala boog amaguma tur waaye bëgg naa tur léegi nga lan ngay def maintien sa forme téye sa tànk teel a tëdd hmm. affaire jigéen nag yooyu moom beneen affaire la ci affaire affaire jigéen bi dinaa ci ñëw waaw moom moo tax ma yem hmm. foofu xam naa di nga ci ñëw léegi euh, ma bëggoon père damay gis ci mbër yi euh, ñuy dem salle de musculation di yëkkati ay plus de quatre cent et quelques kilos di escouade lu mat ay trois cent nangam kilo mm-hmm. di dem din nga leen gis ñuy jël ñett saaku suuf di ko mm-hmm. teg seen kaw mm-hmm. loolu baax na looloo gën a bon ci àdduna ñu ngay rey seen bopp saaku suuf sax la nit attanul saaku suuf bu ñu dóor moom ne kerk waxuma sax cent kilos yu daan am xool bi cent kilos yu mag yi kooku moom nit attanu ko waaye cinquante kilos bu ñu duy ba boros ko ba def ndax du am foo ko jàpp sax no na dañuy jël foo ko jàpp moo jafe cinquante kilo bi dañuy xaaj suuf ba ci digg bi. waaw ñu yeew ko. waaw jëlaat xaaj ba ci digg bi. yeew ko mu waaw mu nekk waaw ñu teg di ko yëg ci digg. di kooku tamit du si système bu baax. ñu koy def ñu ngi rey seen bopp gis nga yaram da nga koy teg lu mu àttan saa yoo ko tegalul lu mu àttanul bis dana mës a ñëw mu claqué la nga tëddootoo jóg mukk mbër yu baree bari ka seen carrière yàqu na xamu leen yàq. Hmm. problème amu seenu. skat yooyu ñuy def noonu. Hmm. ba seen seenu yu ci bari mbër yu ci bari am seenu nañu am xam nga lu ko am. Hmm. parce que dañuy tiitaroo man yëkkati naa cent trente kilos laa yëkkati. Hmm. six cent kilos laa yëkkati wala quatre cent cent kilos laa la la hmm. kooku boo ko defee kooku baax xam nga ñan ñoo ko ñan lay def. ñi nga xam dañuy naan dañuy ëppante loo yëkkati. te buñ ko nee ces rek dañ koy sànni. si compétition euh, coupe du monde yi di nga koy gis. dañ naan ces rek sànni mu dem. waaye teg sa teg sa mbagg. toog di wàcc ak moom di jóg. dama ne kooku moom musiba bala moo xam ne ku ko ciy def doo màggataale ndaw mukk ci àddina doo màggataale wér-gu-yaram mukk ci àddina man maa la wax lii. te mbëri ñi koy def d'habitude yëpp. dañ koy ndamoo. waaw dañ koy ndamoo koo ci ndamoo nag yaa ngi gaañ sa bopp. Hmm. bu loolu nag du doole. Hmm. loolu nag du doole loolu ku koy entraîné am ndof ak ndof ngay entraîné. te boo demee ci entraîneur bu xam dara bu am xam-xam ku mel ni tey maa ngi koy nuyu de passage Ibra hmm. moo nekk directeur technique euh, équipe nationale. Euh, ku am xam ku mën a entraîné. damay wax xale tënkee leen. li ngeen di jógee fay tëngee ji dem Europe di entraîné ci bàyyi ngeen fi borom xam-xam te loolu du la ko yenn mukk ci àddina mm-hmm. te condition la lay jàngal boo xam ne bu la ko defalee bu jógee tubaarkaal da ngay woo boo mel ni mur bi waaw parce que entraînement compétition dafa am entraînement musculation dafa am ñii def waaye kii compétir di dajeeg sa morom dafa am nooy liggéeyee mm-hmm. yëkkati weñ ñu diis yooyu amul yooyu bras yi rek la yëkkati pectoraux yi mu def nii bras yi def nii loxo yi jóg cuisse yi toll yooyu loolu loolu moom forme la bu rafet rek mm-hmm. form buy rafet dong la ñu ne ah kii kat xool ko tuwaar kàlla pectoraux yi taxaw na bras yi xoolal cuisse ni mu taxawee xoolal mollets yi. Hmm. xoolal bras yi avant bras yi yëpp ñëw loolu forme bu la waaye condition physique nag loolu leneen lu ñuy liggéey la leneen loolu lañ koy liggéey. waaw te loolu boo ko amee nag. Hmm. da koy denc nag loolu nag xam-xam la boo xam ne bii moo tax entraîneur yi bari na ñu naan man entraîneur laa nangam laa nangam laa te fekk na boobu xam nga ay accompagnateur lañu. Hmm. parce que dama ne accompagnateur ak entraîneur du benn boy. ma ànd ak moom ba ma ànd ak moom arène ma ànd ak moom yaa ko daan gunge rek. Mm. waaye ki ko entraîneur mooy ki lay jox xam-xam. ki lay dolli. xam-xam. Mm. loo def erreur mu du nii nii la nga def nii mu teg la ci koo koy entraîneur. dëgg la kooku da ngay am premier degré deuxième degré troisième tubaab yi fonk tubaab yi ñëpp xam-xam. Mm-hmm. entraîneur du ko jóg doon ko. Mm-hmm. dëgg la da ngay am premier degré deuxième degré troisième degré rek ñu ëppante nu ëppante xalaat. Mm-hmm. waaw waaye ñin ñi da ngay ànd ak mbër ñaari yoon ñaari weer ñetti weer wala benn ngeen nekkandoo koñ bokkandoo koñ jéeli ak diw ñoo bokkoon ko ñooy ànd nga mm. wooy maay entraîneur maa ànd ak moom ba pat maa ànd ak moom ba arène nangam nangam waaye loolu toog bokkul nag ak entraîneur waaw dëgg la am na solo dëgg la euh, beneen bi mooy mm. euh, mbër yi mm-hmm. dañ leen a xamal ne mbër warul teel a takk jabar mm-hmm. war ngaa mën a bàyyi ba bëree mm-hmm. ba def sa carrière làmb ba mu jeex ngay doog a takk soxna mm, takk soxna si daa am lu muy yàq ci bëri léegi kooku musiba la lu ko la ko dugal lànkal teel takk soxna ak teel teel samp kër. Hmm. Ah, loolu koy ku la ko loolu mooy avantage doom adama ndaw day teel a takk jabar. Hmm. ndax mu teel ci am doom. loolu tam hmm. mag ngi daan nañ ko def teel ci am doom. bala ngay màgget sa doom màgg. dégg man mën laa aw ci lu bari. teel a takk jabar avantage la. dégg nga li ma la waaye ne teel du ma takk jabar parce que mbër laa damay bëri. déedéet loolu baaxul parce que xam nga yàlla dafa am lu mu ñu tere am lu mu ñu sant. gis nga teel boo yoroon ñaari jabar te nga yem ci say soxna mooy loo def la yem say soxna. avantage nga am. da nga lekk bu baax da nga entraîné da nga tëdd da am kàttan mm-hmm. yaa ngi dégg li ma wax mm-hmm. waaye su fekkee ne da ne man du ma takk jabar parce que damay téye sama doom ni mm-hmm. damay téye sama kàttan mais kàttan gi yàlla mën ngaa xëy rek sa biir daw rek nga ne ko seet ba mel ni ba bantu bale wala nga xëy dégg nga sa biir bu métti jàpp wala bopp jàpp wala dara jàpp la léegi loolu gën a yóbbu doole di waaw loolu niroowul nga takk soxna nag boo xëyee jox ko sa dépense mu dem toggal la plat bu baax soo entraîné fekk plat bu baax. Hmm. soo bala nga boo xëyee entraîné ñëw fekk ndekki lu baax. Hmm. loolu dafa yem ak dara. xam nga li bon mooy. Hmm. yàlla ci yàlla mooy rek a bon. amiin mooy yàlla ku lu moo tax lu mu ñu tere baaxul ci ñun. dëgg la waaye lu ñu dugal rek sunu njariñ la. aadama wuyu. waaw yàlla. lu mu ñu sant bu ñu ko defee rek sunu njariñ la. dëgg la waaw. daf ñoo tere carte naan tere ñu naan sànna tere ñu njaaloo. wallaahi comme boobu ñu ko teree nag loolu bu ñu ko moytee rek sunu njariñ la waaye bu ñu ko defee nag gis ngaa njaaj li. mooy teel takk jabar ba mu ñu ko sante ba ñu ko mën def ko takkal commencé ñaar ba ci benn bala ñett ba ñeent ku ñu ko sant kay xam nañu léegi nag su ne soo mënul nag ah nga yem sa benn wala boog nga nga xam ne mënoo. mais père bi yow nga ne takk jabar baax na ci mbër. Hmm? te man damay gis ci mbër yi ñu ci bari euh, bu ñu amee soxna dañ koy génnee yabal ko mu dem fenn. durant trois mois wala mhm. nag gis nga lool nag ak ay ay ngëm-ngëm rek la gisaman nga man mi wax yow nii. jaar naa ci ba soo ma saam combat maa ngi ñaanal sama soxna boobu gaañu maam Kana Sow yàlla na yàlla yërëm ko yàlla na ko yàlla xare àjjana. te xam am na sama sëriñ xam ne ma doon ñaanal moom laa fa yebal ma fa. Hmm. Ah, waaw waaw laa yebal ne ko am demal jox diw nangam demal jox mu dem toog jox ko mu andil mu jox ma. ku yónni rek jabar ci gën a wóor. Mhm. parce que jabar da lay yéene ndam du la war mu jàdd na. Mhm. bu fekkee yéene ngi jubóo jabar bala nga gis jukkoom rek nga danga ko wutal wujji wala dara. Mhm. mais fii nga wutaloo ko wujji ngeen bokk nekk yaa ak moom dégg nga am su nga am bisu xare nga wuti moo ci gën moog sa ndey. am na solo bàyyi leen ci xel. ndey. ne ñoom kenn geew yamu ci ñoom. bàyyi sax mën nañ ne bàyyi ñëpp bàyyi naa nga am naay doom fii am naay doom fële waaye dama ne ndey ndam. ndam moom. ki la ko gën a yéere mooy ndey ji la jur ak ba ak jabar ak jabar ji ne sa ginnaaw maa la wax li téere laa la wax kay li ma la wax nii ah yotam waaye loolu loolu lu dëgg lu am la moo tax naan dama jabar am sa jabar yebal ko seen loo ko yebal sa kër loo ko bàyyi fii mu ah, la defal la ko bu ngoon jotee nga tëdd fële mu tëdd fii yéen a bokk néeg bi dara moom xam na ne yaa ngi préparé combat bu combat bi passé kay xeex bi commencé na mais bu combat bi ko ki nekkee xanaa mën a nekk ci combat ba pare di entraîné te ngoon gu jot nga ñëw di xeex si déedéet doo fa xeex. doo fa xeexante da ngay bàyyi ba combat bi passé loolu kay sam la waaye jël koy tamal toog seen kër ma toog sama kër may defi li ma war a def ku ma koy defal kal wala ku la koy defal kala koy defal sax mën naa nga xam nga def ko ku la koo xam ne yéene wula ko waaye jabar ji fanaan sa ginnaaw daf laa yéene li ngay def mm-hmm. waaw parce que bëggul jëkkëram am gàcce parce que bu amee gàcce am moom yow am nga gàcce waaye yabal jabar mu dem sa kër loolu xel la man de ma su ma ko def daaw ma sant kenn def ko man te mbër mu ma déggal doo ko def jàll sa jabar bàyyi sawet su muy togg ngay lekk ngay naan ngay di entraîné jàpp sa bopp moytu mooy loolu rek la mooy rek a yàq nit mais leen yàqu nit. per dama bëggoon euh, nga lancer appel. ministre des sports pour mu ubbi stade bi. parce que père fi mu toll nii. xale yi sonn nañ trop trop trop. muy mbër yu ndaw a ndaw yi. muy mbër yu mag yi muy mbër yi ci mag mag a mag. lekk avance jàmbur toog di xaar. rek dafa metti mm-hmm. fi mu toll nii li wolof naan ku njëkk a yuuxu da ngaa ragal. Mm-hmm. mais xale yi ñëpp a sonn man mm-hmm. appel yi may jot ñu may wax ci coono yoo xamante ni ñu ngi koy dund. malgré yaa ngi doo wax naan làmb du métier. na xale yi wuti beneen métier. boole kook làmb d' accord mais père est ce que ministre bi du jar nga wax ak moom ngir ñu ubbil bi. waaw bi euh, maa ngi koy nuyu de passage Matar ba nit ku baax. wax dëgg yàlla maa ngi koy ziar. dëgg la ko dal ci cër bi mu jox les sages. Hmm. ba jox ñu fa ndomba tànk. Hmm. yaa ngi dégg mais dama la ne li daal football bi li daal bëre bi moo dal football bi daal karaté bi daal judo bi daal bokk daal euh, euh, kii bi basket bi daal lépp. maanaam sport Sénégal ci boppam. Hmm. moo freiné. dégg nga li ma la wax. te mënuñoo ubbi bii bàyyi bii bu beneen ubbee rek dinañu ubbi mais nag dafa am exception. parce que làmb suñu po cosaan la moo xam ne xam nga tey par exemple léegi. Euh, football bi. Hmm. football huis clos est-ce que tey mën ngaa tëgg sa combat def ci sa cent millions wala deux cent millions pare encore muy def huis loolu moom xel na loolu xam nga mënu ko. laa ko xam nga tey combat yu mag yi ñu fi tëgg tey ji hmm. ñooñu xanaa ñoo am sponsor boo xam ne mooy jël couvrir lépp. Hmm. mooy couvrir lépp. te euh, maa ngi dégg ci wewu nag boo xam ne bii xëy na euh, di ngeen jot information bi dégg na am na benn télé boo xam ne bii. nee na moom dina commencé tëgg làmb daa nga def ko huis clos am na télé dina def loolu. waaw mm. ah, kooku nag loolu mu wax noonu. Mm. su fekkee noonu ma ko déggee noonu laa amee di ko defee noonu. Mm. ah ku ci am combat am sens di yi mën nañ ko mais ki amul télé di luy télé wala nga xam dafa day wut bénéfice ko xam nga. Mm-hmm. moo tax kon lii pour mu changer bii nañ ñaan yàlla affaire bi joxe feeg jàmm rek. mais père waaye football tamit la mu mën a couvrir. dégg nga parce ñoom mbir la moo xam ne mën nañu benn nit toog fële benn nit ko mais loolu làmb mënu ko mais père loolu mën nañ ko def ci làmb. waaw bu ñu ko defee ci làmb toog ku nekk jël. waaw mais loolu est-ce que loolu pas promoteur arrangé na promoteur bi sa def cent millions wala deux cent millions. foofu ngay xool parce nañ ko def loolu. Hmm. ñu ngi ciy xalaat nu ñu ko defee ku nekk takk masque. Hmm. yor gel yor affaire appareil yooyu ñu am ku taxaw ci buntu bi ndax sa température yooyu hmm. ñoo nañ ko xool. loolu lépp c'est facile loolu moo naa nekk. waaye dama ndax moom mi tëgg làmb ji fay deux cent millions bëgg ci bénéfice ko. ndax mën na ci loolu arrangé na ko wala déet. parce que bu fekkoon ne làmb ji gouvernement bee ko gérer boppam. Mhm. comme ni ñu football nga xam ne football bi euh, euh, gouvernement bee ko gérer boppam. moo fa mhm. teg ay nitam. Mhm. noonu nga xam ne même bu kenn nekkul sax ci terrain bi sax dinañ football. bu fa kenn ñëwul sax dinañ football moom. mais loolu est ce que yow jiili mu tey foog tëgg lambam. jël ñaari mbërëm fay xaalisam tëgg loolu ñëw di ut ay rentam di ut bénéfice est ce que yow loolu mën nga ko. moo tax mooy la bi affaire bu critique la. affaire bu doy waar xale yi. lu muñ lu metti metti na rek muñ leen te ñun ñëpp ku julli ab julli lañu ñu ñaan ci yàlla yàlla na fi yàlla teggi mbas mi. loolu rek fi que lii ma gis nii man. Mm-hmm. mbas mi jóge fi rek koy dindi. waaye feeg mbas mi jóge gu fi. pour def lii pour ñu def ay tekk ay gel écarté nit ñi ñu bañ a soog mbiri làmb moo demee noonu. Mm-hmm. moo ni mu baaxoo ak ni ko cosaanoo noonu suñ ci continuer nii pour làmb tëgg dina jafe. Mm-hmm. mais ñaanuñu yàlla nag mu continuer xëy na dina léegi mu daj nañ ñaan yàlla mu jóge fi rek. jërëjëf waaye ñu nag football ñu nag footballeur yi bokk ñu ni ñu doxaleen hmm. waaw man de maa ngi doon séentu lamb le vingt quatre décembre. incha allah trente et un décembre. premier janvier bis yu màgg yooyu maa ngi ci doon xalaat làmb bis yu neex yooyu nga xam ne bisu làmb la woon saa yu jotee sa xel dem ci làmb euh, père ma lay jaajëfal bu baax. waaw jërëjëf yàlla na kontaan yàlla na yàlla def ñu yàlla ñu defal dégg ak topp. amiin yaa rabbal yàlla na yàlla defal dégg ak topp rek. loolu am solo. Hmm. dina li ñuy waxtaanee yëpp lu jëriñ doomu aadama la. luñ ci juum ñu baal ñu ko luñ ci juum lu ci baax borom bi la lu ci bon it ñu sunu matati doomu la rek. Mm-hmm. kon maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñu ngi safoo site bi yëpp wax dëgg yàlla di ñaan nag abonné yi gën a yokku. Mm-hmm. waaw ku mel ni ñoom Assane Assane côté. boo mm-hmm. Jurbel moom nee na woon sama gars yëpp dañu àll ba abonné ci euh, waaw xam nga keroog paas naa la ko. dëgg la booy bu xorom waaye ndeysaan. ndeysaan ko xam naa bis boo toogee ak moom yow. kooku moom rek doy na film. <laughs> waaw may nuyu ñëpp di siyaar ñëpp nag.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 tuuna rëy ma juum waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor si jeeg